leen jàmm ñu doore ko xibaar bu tiis bii dal ci kaw Sénégal xalif général Ndiassane di maam Cheikh bu Kounta wuy ji borom tey ci Tëngéej kooko doonoon ko xam ne rek mooy xalif bu Ndiassane doon tamit ko xam ne dafa taxaw dundam yépp mu jagleel ko diine islaam doon ku xamoon alxuraan te bëggu ko doon sàkku tamit saa su nekk ngir Sénégal am jàmm ak dal ci diggante bu rafet tamit ak tarixe yi ci loolu nag dañuy euh, dem rek euh, ci ci buubu jokkoo bi wax ak kenn koo xam ne rek ku jege famille bi la doon tamit euh, taalibe di Bekkaay Mbaye bu 2STV suñu Bekkaay gannaaw buñ la jaalee ana lan nga ñu mën a baaxee ci ki fi bàyyi ko tey. di bokk ak yéen xanaa siis bi yëpp di ko bokk ak jullitu Sénégal yëpp di nit ku baax koo xamante ne ni lislaam moo ñàkk Sénégal moo ñàkk nekkoon mbokk ñëpp it nekkoon mbokk jullit yëpp nekkoon sët bi jiitu it ci nekk xalifa général ginnaaw bi nga xam ne ni maam bu génn na àdduna mu toog toogaay boo xamante ni toogaayu diine la toogoon toogaay boo xam ne toogaay bu rafet la uufoon njabootu cheikh bu Mouhamed Kounta yëpp uufoon it njabootu cheikh cheikhul Bunaama yëpp tey ji lislaam ñàkk na ku mag ndaxte du tarixa moo ñàkk ndaxte boo demee Touba ay mbokkam lañ boo duggee biir Tiwaawan ay mbokk ma fa nekk foo ci dugg ci këri diine yi rek li nga fa fekk njaboot bi nga xamante ne moo di njabootu Cheikh bu mu amee Kunta soxnaam ci boppam bokkoon ci sëti Serigne Touba yi mu am njaboot goo xamante ni ci biir am na ci ay sëti Serigne Touba di koo xamante ni bokk naat ñëpp daal Sénégal daal l'islam moo ñàkk tey ji ni nga ko defee foofu ci Tëngéej la génnee àdduna ñu ngi koy waajal nag ñu ngi koy waajal fii ñu toll nii ndaxte ci njaboot bi rek daf ci am ñoo xamante dañ leen a yóbbu yónni woon ca Algérie mu amoon spécial boo xamante ne nii tukki la buñ fa demoon taawam bi Mohamed Kunta ma nga ca Algérie tey jii la war a yegg si nii ci avion spécial moom ak délégation bi nga xamante ne xalif bi yónni woon na leen foofa lépp ngir ci lislaam rek ak lu koy gën di yaatal rek ñu ngi waaj a wàcc fi nga xamante moo di aéroport bu Blaise Diagne bu 16 jotee ginaaw bi ñoom it dañuy jubal ca Ndiassane ñu ngi xool ndax dinañ ko denc wala dañuy xaar ba suba ci xibaar yoon jot daal dañ doon xaar taawam ñu ngi xool nag ndax tey lañ koy denc wala ëllëg bu neexee yàlla ci suba gi ñu koy jaale ñëpp di leen ko jàll yéen ñooñu waa TFM di ko jaale rajo yeeg télé yu nekk ci réew bi yëpp di ko jaale di xam ni daal l'islam ñàkk na ku baax l'islam ñàkk na ko gore waaye nag dañ ciy sant yàlla ndaxte yàlla moom mooy dogal noonu yàlla mooy defe noonu ñuy ñaan rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barke yeneen ci bi xam naa ni nag dinañ ciy dellu si nii di jubal ah, jërëjëf sëñ bi di ko jaal yow tamit xamoon nañ ne ko jege la ci loo sax dañuy desandi ki nga xam ne rek mooy Ahmed Bachir Kounta di keneen koo xam ne rek ci famille bi la bokk. ñu fas yéene wax ak moom rek ci ki nga xamante ne moo fi bàyyi ko tey di maam Cheikh bu Kounta ca Ndiassane ah, bu fekkente ne jàppandi na ci buumu jokkoo bi ah, sëñ bi Kounta ñu ngi lay ziar gannaaw bu ñu la jaalee ba noppi. waaw waaw euh, ñu ngi leen di delloo nuyu. waaw gannaaw bi la masawoo lan nga ñu mën a baaxee ci ci fi bàyyeekoo tey. waaw li may li may wax nag man dama ni maa di maa doon porte parole am di porte parole famille bi bokk itam ci li nga xam ni bu ko yàlla tuddee mën na toog ci deru Cheikh Bou kon dama n'importe qui ci famille bi. waaw foofu mu foofu mu toogoon bu ko yàlla tuddee mën naa fa toog. bon loolu bon moom ma ko waxee moo di moom moo di sët bi nga xam ni sët bu jëkk la bu toog ci deru Cheikh Bou Kounta gannaaw bàyyi mu ngi toog en 2006 eh, nekk fi ay at yoo xam ni atu defar la woon ci moom. atu dundal ndono gi la ndax ndono tawxiid dafa di lu rëy. dana tawxiid di dafa di lu rëy te ci loolu la nekkoon e taxaw itam ngir lépp loo xam ni moo di bennoo lislaam loolu mu ne jàppandi ndax loolu ndono la ci sunu maam Cheikh Bou Kounta ndax sunu maam Cheikh Bou Kounta fab na doomam ju ñuy wax soxna as Aïchatou Kounta moo muuru sëriñ Modou Moustapha Mbacké taw sëriñ Touba fab doomam ju ñuy wax soxna Mariam Sidi Kunta jox ko sëñ Babacar si moo muuru sëñ Babacar si xalif généralu Tijaan yi am na beneen doomam ju ñuy wax soxna aminatu Kunta moo muuru sëriñ Mouhamadou mustapha Fall taw Cheikh Ibra Fall am beneen doomam bu ñuy wax soxna Mariam Kunta ñu dénk Chérif abdoulaye Aziz Aïdara ca fii ngeen xam ni moo di Tëngéej moom mii nelaw tey di alaaji Mambu Mamadou Kunta moo di doomu sëñ Mamadou Kunta sëñ Mamadou Kunta moo doon ñetteelu xalifa Cheikh bu Mouhamad Kunta euh, moom alaaji Mambu mu fi jóge tey jii mi ngay denc doomu moo Modou Moustapha Mbacke mi ngay denc donc surtout sëriñ Touba am ak moom njaboot ñu koy wax soxna Aminata Mbacke lii dafa wane rek ni euh, ndono gi nga xam ni moom la ñu fi maam yi bàyyi تموين دون بينو نخدك وخي الله واحتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مويتي بومو يالا بن فيولو بينيون لولو اي تلانيكون مملك من غانيون ادنا 1925 دوكو خايما تاي تاي نيك نجرون نين فوكيت نيت آه بارينا آه نخ ساخيزو فاو mënta nekk. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ci ngàllo yàlla la ñu bokk te ci yàlla la yi dellu. Eh, loolu nuy jàngale bis bu nekk. jërëjëf jërëjëf te itam. Uh-huh. la nga xam ni moo di li am ku tiim. Uh-huh. raw du Cheikh bu Kunta tiim raw du Cheikh bu Naama tiim raw du yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni kenn du fi bés كان في دش كل شيء هالك الى وجهه متحيا للنون ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين يقول جرجف جرجف جرجف جرجف آه، سيرين احمد بشير كنت كادو رافتنا ديك جال نجابو بي ديك جال وا اسلامي يك دي نيان رك آه،